la ñuy dugal émission bi ngir ñu mën ko gën a mën a suivre parce que gis nañ ni bee paase nit ñi bàyyi nañ ci xel bu baax a baax ci solution info TV Omar Bun Khattab Gueye nekk ci kàddu gi point yi nuy waxtaanee dina ci bokk violence politique bi dinañ ci wax wax aussi tamit euh, ci campagne électorale bi Bougane Gueye Dany Barthélémy Dias Sonko jàngat biñ ci def ginnaaw ay fan ban dooree campagne bi ak tey jii. dinañ jeexal ak message boo xam ne bu ci xajee dinañ ko jox le président Bassirou Diomaye Faye di message boo xam ne ça tien à cœur parce que bëgg nañ ko waxee jëmee ci président de la république di ay kàddu yi yóbbante ñu door ko ak li jëm ci violence politique bi violence politique bi li ko indi ak lan moo waral am ñenn ñi am intérêt violence di am dinañ ci dikk waaye jàngat bi ñuy njëkk a def ci li tax violence am mooy campagne bi ba mu dooree dimanche ak tey ji danoo def remarque ci ni un seul lutteur dans l'arène cooli mooy Ousmane Sonko moom rek la gaa yi di topp moom rek la gaa yi di toppandoo loolu nag mooy li ñu seetlu bi mu ñëwee door campagne yenn saa sax mu sànni ay xeer sànni ay pikk korog wax na ko nee na loolu day neexal campagne waaye ñëw na ci référentiel bi pôle territoire yi ñu bëgg a ibbi ci réew mi yëpp fu ne ñu teg fa seen tànk ngir expliquer Sénégal horizon deux mille cinquante lan lañ ci nar ñu gis ni fu mu dem mbooloo da koy dar mbooloo moo xam ne kenn xamul nu mu toll mbooloo moomu nag lu tax ñu dar Ousmane Sonko benn li ma ci jàngat mooy delloo njukkal. maanaam Sonko am na lu mu lebal Sénégal parce que boo xoolee deux mille dix neuf ak tey jii Ousmane Sonko bokkul ci élection wala nga dem ci urne fekk fa kartam wala nga fekk ab bulletin ci centre de vote parce que deux mille vingt deux législative locale dañ ko teree bokk local sax peut-être mu ngi woon Ziguinchor parce que mun nañ ko mais au niveau national. mun nañ wax ni mi législative 2022 di présidentielle 2024 bokkul ndax dañ ko teree bokk mu tànn ay mbër samp beneen bi mooy Ousmane Sonko duggoon fi kaso xale yi naan ko Sonko namm nan la koo namm nag mooy ki nga yàkkamti mu ñëw nga wan ko sa cofeel wan ko ni li nga xeex pour ñun de 2021 ak tey jii ñun fàttewuñ ko ñun li nga def pour ñun ñun fàttewuñ ko kon dañ lay delloo njukkal kon njukkal am na ci parce que ki namoon la tey jii ñu gis ko parce que ci présidentielle yi campagne bi xat na ba mu nekkee premier ministre ak tey jii lu bari xaju fi te campagne présidentielle bi daa am ku mu doon campagnal mooy Diomaye mais tey Ousmane moo soxla te wolof nee na jinne bu bëggee daxaar ku yéeg daanu gis naa ni nag jinne ji mooy Ousmane Sonko moo tax gars yi mënuñoo yéeg ñu jote yéeg sax daanu nañu kon loolu jàngat la ci Ousmane Sonko ak yaakaar bi ñu am ci moom pour ëllëg wolof nee na saraxole du topp néew bàyyi seet ginaar du du bàyyi kii taxani naanaam du bàyyi kii bojj di topp kii taxani ñu ne Ousmane Sonko mooy candidat bi ci élection législative ñu ne majorité la soxla ngir mën a doxal réew mi majorité boobu mooy li ngeen yaakaar ci man ba fal ma wala ngeen falal ma jomaay tey jii moom laa soxla ngir li ngeen yaakaar mu mën ko doxal mooy ci wàllu koom-koom ci wàllu politique ci wàllu réforme jëm ci wàllu institution yi ndax ginnaaw ba mu nee jub jubal jubbanti loolu lépp ngir mu mën ko faw ñu jox ko yet wi ngir mu mën a jub jubal jubbanti xam na la sénégalais eggagul ci vote mais vote utile la la def vote utile mooy danuy xool ki gën a jekku ak kin gën a yaakaar ñu jox ko seeni carte loolu mooy campagne électorale bi beneen bi ci topp mooy la mu def ca dakaar Arena mbooloo mi mu dajalee ñu ñëw indi seen xaalis def ko ci campagne bi benn bi mooy mu jiital tamit Sénégal ci campagne bi mooy drapeau Sénégal hymne national bu Sénégal loolu c'est important maanaam bari na ñu dem di wuy ji wuy ji wuñu Pastef wala jëmmi Ousmane Sonko mais am na ñoo xam ne Sénégal moo leen tax a jug te képp ku yaakaar ni mënal nga leen dar Sénégal wala nga jariñ leen ñu ne kaa ñu topp la ba ba ñuy gis leneen léegi nag yooyu yëpp bu dajee ci koo xam ne bi muy nekk opposition mu ngi doon am mbooloo tey jii mu yor nguur mbooloom day gën a yokk parce que lii tax ñu mën ko xeeb lii tax ñu mën ko weddi nekk gu fi parce que six mois la fi defagum sept mois loolu nag boo ko yoree yor parti boo xam ne yaay ilimaan bi yaay xalif général bi organiser nga ko ba lépp lu mën a xew ci parti bi boo ci waxee mu dal mbiri Samba a ngi investiture yi am na ñu bégul mais duñ ko wane parce que lan lañu wax moom rek la topp moom rek la ñuy topp léegi nag topp googu ñu topp Ousmane Sonko yamatul ci jëmmi Ousmane Sonko wala ay waa Pastef yi Ousmane Sonko mais Ousmane Sonko ñii di wujjeeg moom ci politique sax moom la ñuy topp loolu lañ seetlu ci campagne bi moom lañuy topp moom la ñuy toppandoo lu tax ma wax loolu mooy Ousmane Sonko ni muy doxee noonu lañuy doxee ni muy waxee noonu lañuy waxee waaye ni muy soloo sax moom la solo bu gàddoo ab xale bu sax bu ndaw xale nga gis Amadou Ba ñëw gàddu xale Thierno Alassane Sall ñëw gàddu xale Barthélémy Dias ñëw gàddu xale duñ wax wax ju bees waaye ci waxi Ousmane Sonko la ñuy ne maanaam opposition bi nekkul ci action mais dafa nekk ci réaction alors que politique action la ak réaction mais Ousmane Sonko ni mu doon def ba gañ a Macky Sall loolu la bàyyiwul loolu olof naan li nga jàppoon ba mel nii bu ko bàyyi jig na la mooy Ousmane sonk à chaque fois day nekk la maître du jeu mooy joxe le coup d'envoi te dafa yor une stratégie politique boo xam ne ba tey ñi jàkkaarloog moom mënuñu ko jàngat mooy la meilleure façon de se défendre c'est mooy Ousmane Sonko nee na moom même bu mu doon football ab attaquant la woon wala ab milieu wala ab numéro 10 bi séddale mais action yi moom moo koy mëne léegi nag l'opposition day nekk ci réaction. te nit bu nekkee ci réaction li ci ëpp erreur lay def mooy li dal Abbas ak li xew Ndakaaru Abbas dafa nekk ci réaction maanaam dañ ko tooñ mu tooñar bi mooy bi muy wax loolu tax la ngay éviter ci politique di nekk ci réaction politique à chaque fois del mener le jeu mais aussi di nekk ci action Ousmane Sonko foofu la mënee gars yi day fexe ba moom muy dérouler gars yi topp ci di wax te olof nee na oto bi ñuy corné li ci ëpp ci kanam lay ne ki nekk sa ginnaaw di la corné bu deful nànk day tardé kon bu nuy jàngat mbooloom Ousmane Sonko safoo gi ko askan wi safoo ak lépp mais lépp da nga koy jàngat ci stratégie par que dafa tate maanaam dafa xayma nit ñi Dakar Arena pour man nattukaay loolu jour maa ngi koy wax sama chronique ci jamono boobu ma leen du affaire xaalis. day xool fa la ko nit ñi toll est-ce nit ñi pare naan pour topp ko ci campagne bi lool tax mu indi caravane caravane day suul ndaanaan de caravane du ku mu neex nga woote caravane des fois nga dégg ni la visite de proximité li kii ne la lii ki dajale ñetti ñitam toog mais caravane day suul ndaanaan parce que am na nooy caravane oto yi ñooy ëpp nit ñi wala say garde corps ñooy ëpp nit ñi léegi nag loolu lépp mu indi dajeeg une opposition boo xam ne pour man amul inspiration pour man préparé wul élection yi pour man parewul te bëgguñu dem élection lu tax mu wax loolu boo xoolee avant élection yi bari na ci ñoom ñoo xam ne bëgguñu woon dem fexe nañ indi galgal bu ne fexe nañ indi jafe-jafe bu ne mais lépp lu tegal nguur gi rek nguur gi jéggi ko dem même bi ñuy wax ci bulletin de vote yi pour ñu wàññi ko pour économiser huit milliards opposition bi dafa bañ ñu ne nañu dem élection ñenn ñi taafantoo ba dugg kaso pour bañoon a dem kaawu Barthélemy Diaz di kaa boo xam ne lu jar a wax la mooy démb am na ku ñu invité fii bu ma jumul Ami Collé bu de ñoom Déthié Fall nekkoon ci coalition sàmm sa kàddu li mu wax noonu man dama ko yàgg jàpp mooy sàmm sa kàddu Barthélemy Diaz yaakaaruñ woon mu nekk seen candidat pour ñoom dama yaakaar dañ ko doon dugal rek pour ñu écarter ko pour que ñu ne suñu candidat danga koy xeex parce que Sonko li ñu ko doon bañal li ñu ko defoon ci Macky Sall la bëgg a teg Barthélemy mais heureusement ñu bàyyi Barthélemy bokk mais pour man Barthélemy Dias parewul woon pour bokk élection parewul woon pour nekk tête de liste parce que ñun ñii ñëpp li ñu jàppoon mooy xalifa mooy nekk tête de bi wala waa PUR looloo tax bi xalifa bi bi conseil constitutionnel ne Barthélemy mën na nekk candidat boo xoolee. ñi ëpp ci sàmm sa kàddu da ngay jàngat nii dafa mel danoo am déception dafa mel danoo am déception parce que le discours de Barthélemy Diaz ak le parcours de Barthélemy Diaz coalition bu doy ne sàmm sa kàddu Barthélemy waru koon jiite ci koo xam ne mosul dem élection présidentielle kenn mënu ko natt pour mu nekk maire sax Sonko moo ci jàpp maire de la ville de Dakar ñu bari ñi ngi naan maire Mermoz bi mu nekkoon mais xam nan ni mu ci jote woon ak Soham nii loolu lu jar a bàyyi xel la léegi nag surprise boobu ñu am mooy Bart nekk na candidat te ñoom waajaluñ ko woon am na ci ñoo xam ne duñ muyal la mayo boo xoolee waa PUR man Kër Massar laa dëkk mais ni ma laan den gisee parce que dañ fa bari am fa mbooloo bu bari même le président du conseil départemental de Kër Massar PUR la bokk mais ni ma loon doon gisee te bari na ci ñoo xam ne man ak ñoom a dëkk xam naa leen bu baax nga xool. ku mel ne Bougane mi ngi woon ci kaso bi mais les autres burul wax lan lañ indil coalition bi ci côté mbooloo ci côté mobilisation ci côté lii ci côté lee te ku ci wax ñu xeeb la léegi nag boo amee opposition bu mel noonu boo xam ne day préparer boppam ci défaite parce que xam nañ ni défaite mënta ñàkk défaite bi kay nan lay toll nan lay def pour limiter lee dégâts ban jël bi oyof ci foofu la ñu ne léegi ñu ne du lekk ci cere ji waaye nañ ci xëpp suuf parce que nag Déthié Fall ab ingénieur la ab scientifique la ab militaire la bu demee ba jàngat benn mbir cinquième place ci politique mu dem ba ne xaaral ma rocceeku am na lu tax peese na coalition bi natt ko ba xam ne coalition bi coalition poids plume la du poids du sax poids loolu dafa laaj jàngat te boo xoolee ni ñuy campagne nanguwunu génn ndakaaru nangu nanguwunu génn ndakaaru loolu question la bu nu war a poser beneen bi ci topp bi ñu tegee Barthélemy dafa mel ne Barthélemy parewul woon sax pour campagne parce que Barthélemy ni muy campagne baaxul ay invective ay insultes man daanaan laa fookule man daanaan laa man garme laa sama baay ena maanaam ci boppam la ne Barthélemy xanaa boo àndeek ay nit sax di nga ne ñun ay ndaanaan lañu walla nga ni suñu coalition mais il ne parle pas au nom de la coalition mais Barthélemy parle à son nom da ngay xool bi ñu jàppee Bougane li ci ëpp ci waxi Barthélemy nekkul Bougane mais ci boppam man Barthélemy man Barthélemy loolu dafa laaj jàngat damay ñëw ci lan moo lan lan laa xalaat ci violence bi dëgg-dëgg lan moo ko indi léegi bi loolu amee waa Pastef piégé ko moom mi pour man dañ ko piégé politiquement parce que Barthélemy bu dul Ndakaaru te pour man sax doole ji ñuy wax naan am na ko Ndakaaru soo amu ko man loolu laa jaar parce que Ndakaar dañ ko fee teg tegu fi boppam Sonko ko fi teg man boo nee ma xalifa Sall am na doole Dakar man mun naa ko gëm parce que 2014 2017 ay preuve am def na ko mais Barth danoo root rootaaleel ko léegi nag bu dee ni yow amoo benn argument léegi yow xam nga ngay def xam na Sonko boo gisee mi campagne da nga naan kii de feet lay def day feetu maanaam waaye feet ci maanaam da xam ne kii yanuwul campagne bi. dem à la base dëkk yi gën a sori ci réew mi mu dem teg fa tànkam nga xam ne kii am na lu mu nekkal nga xool coalition am ku mu ne ci ñoom présidentiable la boo ne Déthié Boubacar mi Mimi ture di lim di lim ba je du jeex du ay ndaanaan rek ngay lim nga xool derrière Barth ñu ni la Bougane moo nekk ci ginnaaw Barth xeebu ma ko mais lan lay représenté ñu ne Pape Djibi boo ko xaymaa tollu noonu Anta la même chose keneen ak keneen Thierno Bocoum la même chose kon ñaari coalition y a photo léegi nag Bart envergure nationale bi mu doon woote te Cheikh Bara doon ko wax naan Bart bu dul Grand Yoff ak Mermoz gi ba Bart xamul feneen te dëgg la te loolu wane na ko ci campagne bi parce que léegi mu mat semaine mais gisuñu ko mu génn gisuñu ko mu am taxawaay bi war lu dul jël mbiri Bougane rek lii ko pour man ñoom ñëpp danoo amoon intérêt pour ñu denc Bougane ci kaso bi ci kanam naa ci dikk ak expliquer un peu ci Bougane nga gis Abbas Fall eh, mën nga ma indi un peu kii <laughs> Bart léegi dafa mel ne waa Pastef Ablaye danoo piégé Bart mooy au ñu bàyyeek ak Sonko parce que bu nee moom tête national liste nationale la Sonko nekk tête de liste moom mu jàpp ni Sonko mooy nawleem mooy naataangoom gars yi sexal ko Abbas léegi au lieu muy xeex ak Sonko doole ji mu am yépp ci Abbas la ko bàyyi Abbas bandi la Abbas cinq milliards te du tudd tur Abbas la parce que loolu muy wax dara wóoru ko ci te cinq milliards azers yi bu ko tu avant campagne bi ñemewu ko tuumaal Abbas bu ko tuumalaan Abbas plainte mun na ko ci fekk ñu ne noo attaqué ko convoi wu Abbas Abbas def réaction boo xam ne peut-être ëpp na mais tooñ la ak tooñor bi ñu xëy nu na taxawu dakaar seen makkan lakk nañ ko ci biir yu wax ñu bëgg ko jiñ waa Pastef mais boo xoolee ñun ak waa parti socialiste Ablaye Wade yàgg na naan moo taal. kër mbay Jacques Diop kër kii mais bu ñu demee ba ci biir leneen ngay dégg maanaam pratique socialiste yi maison du parti fii ñoom Bamba bi leen fi bëggee tëj dañoo xëy rek ñu ne xeex nan ci biir maison du parti tëj nañu Bamba Fall tëj nañu Birakan Ndiaye maanaam dafa bokk ci seeni pratique yu mel noonu boo xoolee ñi am culture socialiste yu bari ay taal nañu kër gi nañ ko diw taal depuis ñoom mu Mamadou Dia depuis ñoom Senghor depuis ñoom moom lamin Gueye am na yu ñu ci nettali. loolu tax bu nee permanence bi tàkk na loolu ko korog ma ne xalifa bul gaaw a dugal plainte ndaxte damay ragal ngay topp sàcc bi ba jàpp ko sa biir kër parce que ñun nag peut-être booy passé fii nag ñooy ñooy ay gone waaye ñun 2007 ba léegi ñu ngi couvre élection te 2017 ñu ngi doon luy maanaam même lu nekk nekk gone màgg nañ ci kanamu ay nitu politique te boobu parti socialiste moo fi nekkoon kon am na ay pratiques yoo xam ne du tey moo jiitu Pastef ci diggante libéraux yi ak socialistes yi taal sa kër ba pare jiñ ko nit am na fi taal sa permanence jiñ ko nit am na fi yooyu yëpp yàgg nañ ko fi dégg loolu nag li muy indi mooy dañuy jël violence bi bëgg ko ndey la Pastef mais comme enquête la loolu ñun duñ ci sori diw la ak diw mais rek pour ñu ibbi xel yi pour xool parce que violence pour ku amul argument la démb li xew ci convoi Ousmane ko ban gaañ El Hadj gàkku la même chose mooy l'opposition prépare sa défaite te ñu dem élection bu ñu sañoon pëcc xoo am di masawu El Hadj Malick Gakou duñu sañoon pëcc xoo am bu ñu sañoon élection yi émaillé de violence bu ñu sañoon cortège Sonko lépp violence lay doon xam lu loolu ci jubloo léegi fu Sonko di dem rek nit ñi dañuy ragal maanaam mbooloo mi ñu gis moo leen tiital ñu ne léegi dañuy yee fitna yëngal pour que fu Sonko di dem rek ñu ragal nit ñi. ba nit ñi déplacement yi ñu waroon def duñ ko def mais nag mbeñum kanam borom a koy fajal boppam bukki bu yóbbee waxambaane te doxin walla sonk bu demee ba nekk premier ministre ci réew mi ñu bëgg ko yàpp bëgg ko teg fitna waru ko nangu loolu laa gëm waaw lii waratul am li am ba gaañ gàkk waratul am parce que munoo yor mbooloo mi yor lépp yor doole ji yor lépp ñuy gaañ say nit te ñi koy def mooy ñi buggul dem élection wala fi nee nañ coow la ca pindum ten ba ñu amul baak ñoo ko waral te man pour man élection yi c'est une élection gagnée d'avance ñaata la Pastef di gagné lañ xamul mais lin gisagum ci campagne bi danoo gis ni li naan jeex na ba noppi te loolu il faut que ñu bàyyi ci xel parce que opposition proposé gul dara Macky Sall découragé na nee na ñëwatul Amadou Ba ça ne va pas daa bayre nga ñëw ci Barthélemy amul argument pour faire de la politique même ñi ànd ak moom ci sàmm sa kàddu boo xoolee Barthélemy dañ ko xaw a dafa mel dañ ci am déception démb dama gis bi buggaan génnee ngay sentir une déception ci seen kanam yi parce que le discours de Barthélemy ça ne passe pas ça ne va pas waaw discours de Barthélemy ça ne man pour être honnête daf pour man Barthélemy campagne am des na surtout côté wax côté wax wax bi dafa des du proposer dara du indi dara du contribuer ci dara du yaakaarloo kenn dinaa téye avion yi dinaa fexe ba réew mi bloqué maanaam dafa mel ne mi day def campagne contre sa propre coalition j'ai l'impression mais ça ne va pas waaw doon nañ ko xaar feneen léegi nag Bougane Gueye dani gën na dem ñun ñëpp ñaanaloon nan ko ko ngir mu mën a ñëw bokk ci campagne parce que pour man bu bokkuloon ci campagne lu mën a xew ëllëg danaan bokkuma ci parce que pour man Bougane bu bëggoon dem élection dëgg-dëgg day dem ak gëm sa bopp même bii am plus fort res wala sax bu amul dara ñu xam ne buggaan mii gëm na boppam mais dugg ci liste nekk fa onzième ci yow nga ni du ma topp ci ginnaaw jomaay du ma topp ci ginnaaw Sonko yeewi askan wi nga ni gëmoo leen doo ànd ak ñoom ñoom ay système la ñu boobu xalifa mi ngi ci tey nga mën a ànd xalifa tey nga mën a ànd ak Barthélemy tey nga mën a ànd ak waa PDS dem bi ma jitee maître Sidiki Kaba bi buggaan gén génnee man image boobu dafa ñaaw ci man parce que ki li ñu buggaan di jaay ci ni moom anti système la mais tey jii buggaan dafa mel ne moom moo dajale système bi yépp ça ne va pas parce que même bu dul ay wax mais image day wax nga gis Sidiki Kaba gis waa ngi te ñooñ ñëpp pour man dañuy utiliser image buggaan parce que mun nga nangu leen nga bañ nga bëgg Bougane am na légitimité médiatique fexe na ba tabaxal ko boppam léegi dafa am yenn politiciens yoo xam ne danoo bëgg jàpp ci image yu Bougane pour wane seen bopp man loolu laa gis mais man pour man Bougane dafa waroon rek gëm gi nga li mu waxoon ci gëm sa bopp xam na Ousmane Sonko dafa ñëw rek na Pastef puis il faut reste ba ba présidence de la République Bougane pour man loolu la waroon def gëm sa bopp bañ gëm comme nu Tahirou Sarr def nga ànd ceeg ñàkk a sànn mooy nationalisme nationalisme ku ci ànd baax na ku ci àndu baax na nga am rek benn logique nekk ci ba yàlla fekk la ci mais du ñàkk ni jubbantiku dina am léegi nag ngir tëj dafa am benn message bu may lancé Bassirou Diomaye Faye Diomaye mooy président de la République du Sénégal koroog mbiri sàmm Ndiaye bi bi mu ci génnee wax ñi ne waroon na génn ñi ne loolu peut-être jàll na mais dama damay bëgg a wax Diomaye ne ko parce que dama gis Diomaye bu tàng tontu ay tontu yi gàtt ñu laaj ko ci Sonko mu ne noonu laaj leen ko ko ñun du Diomaye boobu lañ bëgg ñun Diomaye bu yaru bi bu dal bi bu teey bi bu oyof bi bu neex deret bi ñun boobu lañ bëgg ñun bëgguñu Diomaye bu mel na Macky sàll li may bañ mu dal jomaay mooy nguur boo ci demee ba commencé di jàgg da ngay wéet gars yi xam lu lay wax noo gëmal sa bopp yaay président de la république ñëpp ngi sa ginnaaw jomaay élection falu la révolution moo la fal di nga li la fal sénégalais boo xam ak boo xamul da ci dugal loxoom te kenn rek lan la rusee mooy sonko yow mii boo laajoon yow jomaay kase sonko na déedéet mu naam doo am 1 pour cent kon tey jii même bu Sonko bindee noo xam ne du noonu bu la ci laajee boo ci mënul wax lu rafet bu ci tontooti Jomaay sonk dala defal lu la kenn defalul ci àddina man jàpp naa ni ku bëgg sonk ko fonk mais dama lay fàttali ndaxte bu nguur neexee oto yi taxaw garde corps yi taxaw soxna yi taxaw ñi lay jay taxaw ñi parce que gars yi nag bu la wëree du la waxati dëgg du la dëgg parce que ndaje bi mu doon def ak presse bi korok bu doon dafa am ñoo xam ne xam nañu tuuti bëgg ko dimbalu tuuti ndaje bi sax du am ba wax ji di fa am élection lañ jëm bindal benn communiqué ñu dem ci élection yi comme yow bokkoo ci kon bokkoo ci kon amuloo ci wax mais lii jàll jàll na Macky Sall dañ ko doon gëmal ni yaa fi ne yow dong la yow kase la yaa fi ëpp doole yow yaay président de la République, tu as tous les pouvoirs, tu le gardien de la Constitution, chef suprême des armées. Diomaye lu tax sa réaction bi keroog ma xaw ci tiit mooy dama gis Madiambal Diagne di la tàccu dama gis Cheikh Yérim di la tàccu dama gis waa APR di la tàccu te ñooñ bi lay tëj kaso ñoo doon tàccu Macky Sall naan ko nan dee ci kaso bi sa noon yooyu buñ kontaanee ci yow maanaam yow man bu ma gisee yenn nit yi di kontaan ci Diomaye ak yenn journaliste yi man dama naan kon jomaay bi man ànduma ci parce que ñi lay tàccu ñooñ buñ bëggee ci yow rek mooy doxoo maanaam yow xam nga kañ kañ la kañ ngay dox mooy bu patriote yépp tàccoo bu sonko tàccoo bu sonko bëggee ci la ñëpp di tàccoo mais yow bi ngay bi ngay am parrainage sonko moo ne utal lan ko mais utaloo sa bopp bi lay fal sonk moo ne nan ko fal Sonko dala desalatul dara dara patriote di dala desalatul dara dara mbiri Samba Ndiaye lu weesu la mais bu la Samba bul jëndee Samba Ndiaye patriote di mukk bul jëndee sa décret patriote di mukk yow boo ko ak président yi fi jaar yow beneen président la bi la falee dama ne jomaay lu tax ma bëgg ko moom mooy ñun ñun parce que président yële mooy ñe dan daan nekk fale ñun ñu nekk fii mais moom mooy ñun ñun lay ndurool bi wax comme ni ñuy waxee lay waxee bi dox comme ni ñuy doxee lay doxee gars yi sax boo dee ñu naan làkk comme ñun ni ñuy làkkee sax lay làkkee kooku Diomaye te tubaab bi dañ naan ce que le peuple veut loolu tax beneen yoon ak décret bu mën a am bul ne non président de la république bul yemale ñëpp réew mi ñëpp ci yem déedéet ñëpp yemuñu at ci ginnaaw daa am nu réew mi demee woon bu dee rey ay nit am ñuy tàccu. bu ndee dóor ay nit am ñuy tàccu bu ndee xas ay nit am ñuy tàccu ñun ñi ñoo leen doon défendre patriotes yi ñoo doon défendre patriotes yi ñoo doon toxe di joxe seen bakkan di génne seen alal di ci def lu mën ak lu mënul ñii di ñaan ñii di saraxe pour nga nekk président de la république doo lay jël ndox ji nga li la faloon bu ko fàtte mukk ci àddina bu la kenn ne décret bi yow yaa ko moom lu la neex nga ciy def ku la neex ngay fal am na ñoo xam ne kenn warul leen fal ci réew mi maanaam ñi gëm projet bi bis bu nu taxawee bu leen jëndee ak ñi gëmul woon projet bi parce que yow élection fal la révolution moo fal loolu di ci bàyyi xel dafa am solo mbiri Cheikh Dieng Cheikh Dieng moo xam ne foofu lay tëjee exemple la pour mbiri Samba Ndiaye Cheikh Dieng li mu def ba mu jur coowal ONAS coow loo xam ne waru sax am. moo tax ëllëg bi ñuy fal nan fal ku gëm projet bi koo xam ne gëmoon na ko démb kooku mbir bu ki ko defar du ko yàq mais wala fi ne mbir du defaroo ci loxo yi mu yàqoo loolu ma ko doon yónnee le président de la république Bassirou Diomaye Faye parce que nguur moo mel noonu plus que ngay dem di gën a wéet di gën a sori ñi la faloon commencé yenn yi commencé di dugg mais melal na nga meloon wala fi ne ni nga jàppoon ba mel nii bu ko bàyyi te dig na la bu topp ñu naan la non danga war a wane sa bopp sa décret Sonko warul warul mel ni kuy jiite warul en tant que premier ministre réew mi amul président il faut président jël ay responsabilités ñu la koy wax dal lay jay man bala ma jëmbal ta tàccoo <laughs> laa tiit bi tiiram tàccoo laa tiit bu yenn journaliste yi tàccoo laa tiit li Cheikh Baara doon wax foofu laay tëjee daf noonu yërëm bu nee Sonko da taxawal Sonko daa war a toog waaye Sonko toogal Sonko daa war a taxaw parce que moom du wax Sonko lu gën ci moom ñi lay tàcc bëgg <laughs> ñi lay tàcc bëgguñu la jamaay <laughs> ñi ñi lay tàcc mbiri Samba Ndiaye naan yaay président yaay kii mosuñu la gëm li patriote yi bëgg bëggal loolu waaw mu ngi noonu kon di gërëm ñëpp di leen sant di jégalu ñëpp di ñaana ñëpp jàmm di gërëm Ablaye Diallo mu nekkoon ci régie bi Abdou Top ak hmm, El Hadji Modou Diouf Euh, di nuy fàll bu baax a baax di jéggalu ñëpp Omar bun Xattaab Gueye moo nekkoon ci kàddu gi kon euh, beneen alxamis incha allah ñu dellu si